7TV de A à Z at Mara émission bi di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam balaa boobu di nuyu waa Sénégal di nuyu Cheikh mun taxa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te ko naal li mu am ci yoonu Seexul Xadim maamam di sunu borom ma talal ko ko mu ànd ko ñun taalibe di ko ñaanal tamit këru tarixa diine yëpp fépp foo xamante ne nii ko kilifa diine nga sunu borom yàggal la te la di jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp di jaajëfal Mara. di ko jox wàccuwaayam bu wéer a wéer waaw nañ jàpp ci gi rek ginnaaw daara ja ba léegi moom lañ may woowee at du Amar gars yi ñii ngi naan Modou Amar ñii ngi naan délégué vrai bi moom mooy loolu waaw délégué moom as ndongo la boo xamante ne nii gëmulu du sëriñ bi donc léppam sëriñ bi la di ku gën a yées ci yoonu murit di ndongo li gën a ndaw ci yoonu murit di koo xamante ne nii que Mbàkke laa defee sama lépp fa laa nekkoon Daaru Salaam laa jàngee alxuraan fa laa yaroo fa laa xamee daanaka àdduna def lu bëri loo xamante ne nii que lépp lu góor yàlla di def rek bi mu nekkee ndaw mën naa wax ne jaar naa ci donc di di di di di xale bu doy nag xale bu léej bi ma nekkee xale coow li bëri woon na nag temps yi ma nekkee booy ndax dama daan xeex rek am délégué indi délégué ba sëriñ bi ñu daan jàngal sax ba ci doomu maam Cheikh Anta di caatam di sëñ Moustapha Ceytu bis coow am na mu ni lu xew ñu ni ko délégué de mooy xeexate mu ni délégué de coow li bëreegul ci moom donc loolu maa ngi koy fàttaliku te moom moo ma dugal tamit néegu góor ma nekkoon xale bu doy waar mbaam dawal naa saretu mbaam daan root ndox saate di jaay bu do bu deelu cent franc yi di ko yu diwlin yi di vingt litres yi di ko jaaye cent franc euh, dewal naa sareetu mbaam tamit di yëpp ay nit di wàcce ji comme Touba ni ngay rombee sareet yi noonu loolu jaar naa ci en même temps dem naa ci garage su Dakar yi bi nekkoon Touba daan fa yalwaan euh, di def naa yëfi ndongo daara dëgg daal waaw lépp loo xam ne ndongo daara dina ko jaar daal def naa ko daan naa yalwaani ay yopp ay njaxas di lekk yooyu yëpp daal def naa ko non man école moom mosuma benn yoon laa dugg bi ma duggee classe bi ma njëkk a def foofu lañ ma dàqee ma bàyyi jàng boobu laa gëj a toog ci banc li ci des yëpp daara ja laa ko defee damaa dugg tey année bi ma dugg yaakaar naa génn ma ko sax ñu dàq ma nekkoon fa di euh, nuñ koy xetee su ma bañee ñu jàng ma jël ay bant roof ko ci xomb yi baa nga xam ne duñ ko mën a ubbi bu ko defee madam mi ne nañ bàyyi ba suuba ñu doog ko jàng yooyu yëpp def naa ko daal toj toj bi ma njëkk a def benn waaye moo mosoon a ñëw wax ne dafa soxla bopp muus ñu dem fekk muus mu jur ay liiram ma jàpp bopp bi rek kët <laughs> booba xamuñu ci dara ay xale ñu jox ko ko mu joxoon ñu benn euh, yaakaar naa ci jamono jooju 1000 francs 1000 francs yi nag bi ma ko joxee mun ñu séddoo ko ñun suñ biir man ma amoon juróom fukk ci jamono jooju juróom fukk yi bi ma ko amee bis am na bis crème ñu daan jar 250 je crois ci laa dem jënd ci lépp ba pare di ci di ci jël par benn nag di lekk su ma lekkee ba pare def ko ci mbuus gas ko suul saw foofu nag nga xam ne kenn ko mën a sulli ba suba ñëwaat ma dajjuwaat ma dem ubbiwaat jëlaat sama biscrème loolu daal xam naa ne bu ma koy fàttaliku moom ay ree may jàpp quoi. moom bañu ma dara ndongo daara la lu na ñor rek te neexal lekk. man daal noir blanc sëñ Bamba Cheikh Ibra mooy sama couleur préférée. waaw bi ma njëkkee dugg kaso at bi Serigne Saliou génne àdduna loolu moom mooy sama li nga xam ne mooy li ma gën a metti sama at bu ma ko xalaatee rek damay jooy. génn àdduna Serigne Saliou moom bu ma koy nettali émission bi dafiy yàqu moo tax du ma ciy sori waaw mais dugg gi ma dugg kaso daal moom it métti na ma trop parce que boo nekkee ndaw nekk ci yoon ñu teg la ay ma tëj la ci kaso loolu daf lay metti ba pare nga nekk ci biir kaso bi sa baay génn ci àdduna. donc loolu boo ko dee xalaat rek sa àdduna day jeex loolu bokk na ci li ma metti lool lool lool lool waaye nag benn doon du dem Serigne Saliou ndax man gëwmoo ne ne kooku dafiy jóge léegi waaw moo tax bu ma ko xalaatee daf may metti bis bi ma njëkkee jëndal sama yaay xaru tabaski te boobu liggéeyuma ma jëndal sama yaay xaru tabaski te liggéeyuma awma salaire dem jàpp bu yóbbu ko sama papa sama papa jour boobu mu ni ma de am nga sama ngërëm ndax lii maa ko waroon nga teggil ma ko di xale bu ndaw te liggéey wata ami mag jour boobu moo ma gën a neex sama àdduna booba yaakaar naa ne dafa am benn waaye boo xamante ne nii ko dama yóbbu woon ci bu baayam ma defal ko fa ay ñaan mu yëkkati 60 000 may ma ko te boobu xaw ma luy 60 000 te ba fekk te ki jub si noonu ma laa jëlee 60 000 yi dem wut ci xar yóbbul ko sama waajuru jigéen Cheikh Amar parce que moom laa bëgg mooy sama mag mooy sama sëriñ mooy sama lépp. non man musique rek musique laay dégloo te musique kenn rek laa ciy dégloo. non man nag yooyu damay jekk saa rek dégg ko ci télé bi man moom yooyu intéressé wu ma yooyu moom du ma koy sax bàyyi xel quoi ay bëreet ay musique yooyu benn jour laa mos a dem stade bëre am. mooy jour bi ñuy tuddee coon sekk bii passé dañu te waali kii ñu bukki yoon ci waali ma àndal moom dem no soo xam nga boo nekkee ci ci ci boo nekkee àdduna nga am sa nit mu bëgg la te yàlla tax nga bëgg ko te yàlla tax ñu koy xeex ci internet bi di ko xeex ci télé yi di ko xeex ci rajo bi te mu leer na lii ñu koy xeexee du dëgg du yoon dañ ciy sóobu looloo ma dugal ci sóobi bi avant avant que loolu daan naa défendre sama mag Cheikh Amar avant que waali di xew daan naa défendre sama mag Cheikh Amar ba fi ay kilifa yu ko daan attaqué dama daan génn dal seen kaw ba nga xam ne dootuñu ñemee dal ci kaw Cheikh Amar ba fi ay tele yoo xam ne ay site internet yoo xam ne dañ daan xëy di bindu leen neex ci Cheikh Amar donc bu mu daan def loolu man dama daan génn dal seen kaw génneel leen seen seen démb bu ko defee ñu mën a dal ci kaw Cheikh Amar ngi ci oto yi maa ngi lépp daal lépp loo xam ne nguur yàlla bu ci duggee am ci xaalis rek dama koy def ba mu des sàcc. Wally Ballago Seck. Wally ba ñuy xamante bureau Cheikh Amar la ñu xamante lu yàgg ma gis ko rek sopp ko ba pare Cheikh Amar wëlbatiku boole maat moom ne kii sa mag la ne Wally kii sa rakk la donc ñu jàppante ci loolu en waali àndal man dem xel xelkom fekk ma biir Touba Kër Cheikh Amar ñu ànd dem xelkom donc ñu àndee àndit boo xamante ne nii que mën nañu wax ne du àndu showbiz bi sax taxul wala way yi taxul moom taalibe la may wan tout le temps man tamit taalibe laa koy wan tout le temps moom dañoo mën naa wax ne daal dañoo àndee sëñ Touba te yàlla rek tax parce que xelkom ji poroxaan ji passé dafa yëkkati téléphone am yëkkati xaalis bu bëri jox ma ko ne ma joxal ma ko jaara jaara yi kon kooku mën naa wax ne man moom sëñ Tuubaa ñu àndee muy relation bu bu boo xamante ne nii ko lu dëggu la gis nga dëggu bu amee dëgg bu amee rek ànd boobu day yàgg te gëm naa ne man waale àndee wuñ intérêt ndax man amul benn intérêt boo xam ne mën naa ko topp ci moom amul benn baan loo xam ne mën naa koo topp ci moom pour di ko neexal wala di raay tànkam pour am ci moom dara déedéet au contraire man maay sentir ne kii ma ngi may way samay deret yëngu ma yëkkati jox ko li ma am waaw man sama nit noonu laa mel ci sama nit man sama nit du ma nangu kenn ku koy tuutal wala kenn ku koy xeex at koo man di doon daraja boo man a am nag soo laalee sama nit wane na da koy tuutal baa nga koy xeex te ma nekk fi yor bakkan du am man dinaa ci xeex sama kemtulaay kàttan li ma man at li ma man yépp def ko ci muy waali di Cheikh Amar ba ci Doro Gueye waaw nanguwu ku leen laal ndax ñoom ci dëgg rek lañ nekk doo dégg mukk wala nga dox fenn dégg seen ojo ñuy wax ci nit lu ñaaw wala nga dégg leen ñu toog di wax ci nit lu ñaaw kon donc ñu waroo leen a mën tuumal lu ñaaw moo tax du ma nangu ku leen tuutal wala ku leen di ñàkkal fayda kooku man tur woowu sax yaa ko tudd man xaw ma ko dëgg yàlla ndax man moom maa ngi fi euh, tur woowu man war naa dund war naa dund ba dee sax te du ma ko xam waaye am na fi ay mataarif yu bari yu am ci dëkk bi ndax man li ma jàpp mooy nit bu nawloowul boppam dee su ko nawloo waaw bu nawloowul boppam dee su ko nawloo man loolu laa jàpp ci doomu aadama mais seexuñu maan moom dara ku bëggul waali sekk tamit bëgguma la ku bañ waali ma bañ la te kooku bëggul waali sekk kooku waali rek la bañ preuve en nekk da ngay gis preuve yi lépp def ay vidéo di saaga di woo ay booy tiktokeur naan man la yow la yaayar tiktoku naa nga ma waali xaw ma naan loolu bañal mënu ko weesu loolu rek man daal bu bëggul waali bëgguma la non réew mi moom li ma fi naqari su ma ko bëggee wax carrément damay génn wax ko man noonu laa mel su ma amee lu ma naqari damay génn wax ci réew mi ñëpp déggandoo ko moo xam comme li ma naqari ci diggante Cheikh Amar at ki nga xam ne mooy ministre Omar Sarr bi ma amee lu ma naqari dama génn takk sama morso bu xonq la ko ci phosphate Matam bi nga xam ne dafa ñëw teg ci ay tànk ne da ko bëgg a nangu ci ministre kese loolu xam nga loolu nekkul lu neex ci xol. non non non loolu moom man ma gëlëm dara sëñ Tuubaa rek laa bëgg. non man moom ne man tax may déglu musique ay hip-hop yooyu sax kii ma ko mais nag maa ngi déglu eh, ay ñoom ngaaka bi la leen yooyu yenn saa yi ñu def yu xorom mu ma seetaan leen ngaaka moom lu tax ma bëgg ko social bi muy def ci kaso yi maa ngi koy dégg. we ñooñu ñëpp ay waykat lañ waaye nag dama am sama benn papa boo xam ne mën nañoo wax ne wàlliw la ndax ay kilifa ñoo ko seede mos na toog mu ni coon sekk de wàlliwu àdduna wàlliwu nitu wàlliwu kii la wàlliwu àdduna la waa liw la buy nëbbatu ndax li muy woy lépp boo dee xool ci téere da cay nekk te lu am la Thione Seck ay woyam xaaj bépp ma ngi ci alxuraan donc waaye nag joor Thione Seck kat Youssou Ndour ak Baaba Maal ñooñu ay ay référence lañ ci réew mi te ku leen topp doo réer non man du ma fréquenté kenn kër waale sax du ma fa dem Momo Dieng dafa woy sama xarit sama frère sama mag sama lépp Doro Gueye muy Momo nag di xale bu baax di waykat bu baax bu am bu am bu am yëg-yëg ci nit mu woy Doro Gueye way bu am solo ma dem fa teral ko ci way boobu ak ñeneen am na artistes yoo xam ne samay samay xarit lañu waaw mais du ma dem di fréquenter kenn waaw kër Waali du ma fa dem bu ma fa demee dëgg dëgg dëgg dëgg dama fa dem gëj fët ma dem seeti ko wala ndox bi jeex ma ko yóbbul ndoxam te bu ma fa demee sëñ Tuubaa la ñuy waxtaanee ba heure tëdd jot ñu dem ñibbi. waaw message bi leen rek la maa ngi gis coow yi waaye fii bu élection yi jotee ku ne xam nga kalaman maa ngi gis coow yi ci élection yi Ousmane Sonko Macky Sall yooyu yëpp mais li may ñaan jeunesse Sénégal mooy lan ku nekk na toog ci ruqam ba élection yi jot nga dem voter ku la neex ndax jàpp naa ne loolu moo fi jëlee président loolu moo fiy teg président mais du sànni xeer ñu lay jàpp say parents di sonn du taal ñu lay jàpp say parents di sonn du sànnante da loolu mënu la mënu la mënu la mënu def jox dara ci réew mi lu dul lan dalay dalay indil jafe-jafe ndax tey kuñ fi jàpp say waajur rek ay sonn tey ña nga xam ne ñoo nga doon xeexal ñu ngi toog seen kër ak seen njaboot di reer ba suur di añ ba suur waaye yow mi nga xam ne jàpp nañ la nga nekk ci jafe-jafe say waajur ñooy sonn di yóbbu añ di yóbbu ndekki dina yónnee xaalis te jàpp naa ne loolu li ko gën a gaaw mooy lan nga toog sa kër élection jot nga dem voteel sa bopp voteel ku la neex président bi nga bëgg mu jóge fi jóge fi nga bëgg mu toog toog fi loolu mooy jeexal mooy jàmmi réew mi loolu laay lancé xale yi nga xam ne ñoo nekk ci waaw xam nga li ñu yor moom ak li ñu samay moroom yor sunu borom dañu ko jox pour ñu partager ko pas ñu yemale ko ci suñu biir kese mooy dimbali néew bi doole at ko mu mën di doon taxawuñu ci kaso yi parce que kaso yi ñu fi nekk sonn nañu amuñu am na ñoo xam ne seeni mbokk sax nekkul senegal ñu ngi leen jàpp tëj ci kaso yi bala ñoo am saabu bu ñu sangoo dina yàgg te yooyu day baax nga taxawu leen yóbbul leen ay saabu ceeb ak diwlin lu mu mën di doon pour nga dimbali leen parce que bu démb doon tey buñ sañoon duñ nekk foofu ci biir kaso bi ndax kaso ku fa caar rek war ngaa xam métit ba fa am loolu moo tax fondation ba pare fondation boobu dafa am en même temps di comme di dem ci jaara jaara yi ñu ngi nuyu ki nga xam ne moom mooy euh, euh, nuñ koy waxatee tey sur Hachir bi nga xamante ne ni moom mooy fondation boobu mu nga ma la wan sànq muy tey sur Hachir di fondation boo xam ne yoonu murit daanaka Serigne Mountakha moo leen jox tur wi poroxaan ji paase ñu jënd matériel bu takku yóbbul ko jaara jaara yi te noonu lañ koy waajalee yóbbu ko xel kom jóge xel xelkom noonu tamit lañ koy waajalee def ko ci prison yi. non ñun fondation bi ku ci ñëw baax na ku ci ñëwul baax na ndax Sëñ Tuubaa jox nañu lu ñuy def ci fondation yi jox nañu lu ñuy taxawoo nit ñi. dinañ def ay soutien nag ku ci jàpp baax na ku ci jàppul baax na ndax ku ci dugal sa dërëm defaloo ko délégué Amar defaloo ko ma Sàmb defaloo ko ma Demba néew gi doole gi nga ko defa yàlla nga ko defa te tiyaaba ji bu ñëwee kenn du la cëppale bëri na business yaa suñu kanam projet yi bëri na bëgg naa tamit euh, bu ma yàlla dimbalee ba ma am xéewal dëgg jeunes yi nga xam ne samay morom lañ te amuñu métier ma def lu tout ñu am ay moto ma jox leen ko ñu liggéey di ci gis seen bopp man tamit ma ciy gis sama bopp sama euh, ambition bo loolu daal laa am jamono ji loo xam ne bëgg naa koo taxawal di ñaan yàlla ngi ñaanal ma ci suñu borom mataleel ma ko ndax xale yi ñu fi bëgg nañ liggéey waaye dañoo amul yoon wi ñuy jaar pour liggéey waaw di jaajëfal rek di di leen sant di di di nuyu sama mag sama sëriñ Cheikh Amar di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te dooleel ko sunu borom yàggal ko noonu laay nuyoo tamit ki nga xam ne mooy PDG Doro Gueye yéen a ngi gis euh, ku mel ne kooku moo baax ci mu réew ndax PDG Doro Gueye li muy def ci ay social li muy def ci taxawu nit yi li muy def ci prison yi li muy def ci néew gi doole yi di dugg ci hôpital yi di faj ñi nga xamante ne nii que seen i ordonnance taxu koo demee noonu mu koy récupérer di leen jox xaalis pour ñu jënd ay ordonnance tey ñu mel noonu tey président ñooñu la war a jël teg leen seen wet ndax ñooñu ñoo ngi koy liggéeyal te président sax xamul ñii ñoo ngi koy liggéeyal tey ku ci mel ne Doro Gaye li muy def ci réew mi ku nekk teg na ci bëtam ku nekk gis na euh, social yi muy def ci réew mi ku ne gis na ne ni muy taxawoo malade yi nga xam ne soo demee hôpital ñu bëri malade yu bëri boo leen laajee Doro ñu ni la xam nañ ko tey bu ñu mel nii moom moo tax man des fois ma am ordonnance boo xamante ne nii que nit daf ma koy envoyé ma envoyé waat ko ko moom ci boppam mu réagir ma jox ko numéro kooku mu yónnee leen li nga xam ne moom la ñu fajoo tey kooku kon ku jara ñaanal la ku jara jàppale la tey mel na Cheikh Amar tamit noonu la meloon ba léegi tamit nii mu tëddee ci tawatam gi yàlla defal ko mu am kàttan bay jug di doxaat ay yitteem tey Cheikh Amar loo ko joxe ordonnance dina fexe ba kooku faju ba nekkaat ci jàmmam loolu ñooñu ñoo jara jàppale ñooñu ñoo jara teg loxo jëfal yéen di jaay waa jaajëfal waa 7TV di leen euh, di leen sant di leen gërëm laxaat maa ngi lay jaajëfal ngay nit ku baax yow tamit vraiment di nit euh, taal kese ñu ngi lay ñaanal suñu borom kàttanal la ba lii ngay liggéey suñu borom may la ci ndam waa télé bi ñëpp suñu borom kàttanal leen te yokku leen ci barkeb Serigne Saliou jaajëfate bi may jàng école wax naa la ko damaa dugg première nu ñu koy waxee première booy dugg dugg premier jour bi ma duggee. sixième madame bi sol benn jupe bu baax rek ma waddal botane yi ju sëgg di fal na yi rek <laughs> foofu la sama dàq jigéen nag <laughs> loolu laa xam ne naat booy bi ñoo bokkoon classe gis nga ko tey dem na ba nekk euh, daaf te tey ñoo bokkoon kalaas tey moom ma ngi nekk daaf gis nga ma man maa ngi nii di. <laughs>